alhamdulilah dayoon day suma baay mm-hmm. ba tey mi ngi fii di la dégg demul fenn mi ngi fii mu ma yónni nag ci xew-xew diine yi ak militants yi ñi génn àdduna mm-hmm. ma dem di def njaal ak délégation bu am solo mm-hmm. waaye comme man maa jàng diine maay ubbi maay def ñaan wax ci nattu ak tiis delloo ko yi wax président Wade bi ma nekk ci palais ba dama fekk maa ngi nekkoon rajo Sud FM waaw bu ma nee Pikine fa la mm-hmm. euh, di juy passage euh, pap Alé Niang maa ngi moom fa mm-hmm. kon pap Alé ñu koy ñaan li ko état bi dénk matal amiin ya rabbi euh, xam na liñ ko dénk yar amna na xam-xam mm-hmm. te bàyyam ku jub la Pape Alé mi ngi dëkk Thiaroye sur Mer li ma ana tàng tàng mooy dafa dëggu ba tax ñu ko kon mana naa wax ci lu Pa Alignan ñoo nekkoon Sud FM Pa Alignan mi ak eh, maa ngi fàttu ko ñoom Daoud Niang Ndiaye maire Pikine bi mm-hmm. buñ ma saan jaaxal ci moom dara ñëw Macky Sall yor mu ñu bañ ko Pa Aliou lu ne jàppale na ko waaye nga yàlla tey lim di sottal sa kon nag niñ ko dékk yàlla na matal ko yàlla def nag foofu nag la Farba solidarité nationale ay tante

comme ay xale yu grève comme Sandaga ñu ma Sandiagou maa fa daan ne waxtaan ak ñoom mm-hmm. président Wade maa ko daan indil ñoo xam ne bëgg audience te ay góor lañu mm-hmm. yoro mbooloo yore ay daara daara yi nga dégg yëpp ni coow li ci ëpp sama xalaat la bàyyi ko mm-hmm. président Wade nag mu nekk loo xam ne nitu social la dañ ma sax toog ma ne ko président yow millions yi nga may ni ndax sa budget état mu ne non non non liñ ma wooteel pour maa ko moom laay maye soxla ma ko mag la soxla ma ko mais dama yóndi mais li tax ma gën a jàpp président Abdoulaye Wade sëñ Saliou Mbacke Serigne Touba la dañu dem Touba ah Serigne Saliou rahmatullah alayhi recevoir ñu Abdoulaye Wade Souleymane Leni Ndiaye Madické Niang Cheikh Amar Farba Senghor man ak Bara Sissoko mooy aide de bi dafa naa ñooñu rek ak njaboot sëñ Saliou yi kër bi ñu waxtaan ba ñëw na ko ba président di recevoir di di présenté ba tudd jaaga sëñ Saliou na ah ban jaaga man ko ah ku tedd gi day jaaga bii de bokkoon na ci suma maam ba nga bàyyi ko njum ca Fuuta Alsan jaaga moo jaar waalo jóge waalo ñëw kokki jóge fa sar dem Saloum sama maam moo sanc xel kom jaaga sëñ Saliou kër la ma kër la ma defal lu ma neex kaay ba mu ñëw mu sëgg mu bin sama bopp bi daal ci ëff Dan abla Ablaye Wade boole naan ngir Serigne Touba bat bobu nak moom mooy bàyyi ci ablay wad ndax bu doon teranga rek la mm-hmm. mak Sall bam nek nekk intérieur maa daan ànd ak mom bu dee baabaroog la ku ne wonama way nak do fekk def sama bap sama papa jangal ma par ñaanal ma mm-hmm. ñaanal ma barkel ba barkeel moom mo top ndax façon risque bu ne ci ablay wad mu ko xamni nak ku yaatu deun la ablay wad foo ko san fet mu tok du tak téré du tak ndomba du lal sunguf du lal bejeen alquran la na jàng guddi ak bëccëg ak xasit sëriñ touba yi Abdoulaye boo demoon kërëm nigé bi mi fanan foto Alaaji malik bu reñ mi mi mi ci wato lalam ah, man nak sama jege nak sama xarit la mm-hmm. ñaaral ba daf may yoni bi Casamance tàngee dem naa fa loolu du wax fi samay nag euh, ñi ñi xam-xam lañu nag donga daara la mais waa Casamance ñoo ne ko bëgg nañu ku jàng daara alquran ab taalibe koo xam ne bii ku taalibe mu ñëw wax ak ñun ndax bëri na ñoo xam ne bii ñi ñi ngi lekk ci état créé ay association ay la paix ñëpp ay dil la la ñu ne kon ñu nitu daara man lañ tànnoon keroog maa ngi dal hôtel bu ñu naan Kañagu maan ca Casamance bi gën a riche la nekkoon ba ne am na fa 18 jours di waxtaan ba jàmm ñëw la ko yàq nag ñoom seen biir la loolu dama koy noonu rek Abdoulaye Wade daa nit ku baax lool di ko doxal mbiri islam Touba Tivaouane Ndiassane fu ne maa koy doxal ba euh, Sonko mm, monsieur le ministre Sonko Ousmane Sonko eh, bi ñu opposé ñoom dañ ma sama moom ñu tase Ndiassane ma waxtaan ba pare Ousmane président Ousmane Sonko ci turu Pastef war a def njaalam mu jël enveloppe ne jox na baax na ne li ustaas wax lu ma ci tegati boobu man mii la biñ paree ñu nuyante Ousmane ne ustaas yow day sa waxtaan neex na trop man ku lay suivre la mais bëgg naa nga ni sama côté du ma ko jëwa Ousmane Sonko man ko dinaa la jàppale mais nag euh, comme président wa Abdoulaye Wade PDS laa bokk te li ma boole sëñ Saliou Mbacké la du ma ko baax mais teewul nag dinaa la jàpp ndax ñoo ñoo bokk métier mi mm-hmm. mané ne Ousmane Sonko mu ah, ko dama bëgg nga top yonent bi so bëggee am ndam toppal ci gina rasulillah bi lay ko duma ko fen Ousmane mané ko bo am victoire toppal programme sayyidina Muhammad lepp administration la mun inshallah taala kër mo bëgg nga ci bot auto kër daaw lu ñam ben benen bi Ousmane Sonko tassé nañu muy dem fekk ben député bu gañu fekk man Abdoulaye wad dama yoni fële ci Louga basir tal gamu lugo bi ñu tase ci station bi garde corps bi am yaram ni moom moo xam xam ne Ousmane la mu avancé ba ci sama wet garde corps yi wër mi ngi xaar Jibril Ndiaye mooy aide camp bi oustaz góorgóorlu man gis naa seetaan naan de tey courage foofu sax jox na woon WhatsApp am lépp jox na ma mais am baat bu ma wax ma ne ay mag di dar gis nga réew gore kessé baxul way mag kessé baxul ba pare ma dem man man damay koo xam ne bu ma waxee yow ni tatatit nii am loo xam avenir la damay dem jébaana ci télé ba ñëpp dégg na man du ma triche ah kon nag ñu toog ba ma ne man de maa jiite arabisant PDS biñ ma nommé yàggul de quatorze régions ñoo ñëw ay délégué chaque région deux délégués ñoo fal dàqu ma leen jàng mm-hmm. ëpp ma leen mais man du nax nit du ma am na solo biñ ma fa ne bi ma fa ne pare nag teew toujours toujours PDS ñoom Ousmane yi ma di leen di défendre ci islam ak diin ak jamono mais ci dëgg mais pas mooy violé mhm. ñëpp xam nañ loolu ci man biñ demee ba yàgg ñu ne Karim dootul bokk man maa njëkk wax avant Ablaye Wade man sama candidat bu bokkul Diomaye yow laay jàppale te boobu ñoo ñoo nga ko mhm. sant yàlla la mhm. loolu ma yéene woon yam am nag sunu bàyyi ju baax ji président Abdoulaye Wade ñëw nag na jàppale leen Diomaye mm-hmm. kon kay sant yàlla la kon ñii dinaa leen xeex man déedéet mm-hmm. waaye nag li ma leen jàppale mooy yaa ko wax léegi la ma Abdoulaye Wade joxoon ca palais ba di ko doxal jàmm di ko xalaatal di ko yëddul yi maanaam président Wade bi mu bëgg a gagné région Tamba man la yónni woon région Tambacounda man ndax booba Tamba musu ko gagné mm-hmm. xam nu ko gagné

ca saasa la am président Abdoulaye Wade woo Karim ak Aliou Niang mooy courant bi ni ci àll bi un mois ñu courant ba tàkk na la des Karim dagg yoon wi jàll mam ne moo gañ kon politique du càgg du tàccu nit mbaaw yuuxu rek mooy xalaatal nit avenir am mm-hmm. nit kuy dem jumaay juma am na loo xam waratu ko defati mm-hmm. dem ci quelques religieux yi non non na am staff يكوي وخال ديكو دوخال اك ديكو ديفال ناخ نيتو يالا بو نيو تياون لو بون بون وارغا خام توت سي خاسيل سيغ الله مالكي اك رسول الله اك لي يوني غريم توبا نون كوم توبا كون نك لول خامني تاي موم لا دون دوخ سي بريزيدان ابلاي وات سانتكو يالا با ريلاسيون مي ام سيفوريزي ييب دارو ماي كو لودول دوما سي ساتي نيت دوما سي فندوات فما تاك واخ نييب كونتان كون لول موتاخ ني نيو جوماي جوماي بو تاخي نا كون داي تاخاول دارا سي دين جي ca ba mooy war na ko waaye neen war waaye han ah? jàkka non jàkk mom buum bu mu ko mm-hmm. monsieur le président bu dugg mukk tabax jàkk parce que institution la et puis république la te dëkk bi du julli ñi rek ñok fi nek amna ño ñoo bokku ñu diine ji te ñi ngi dëkk bi mais man nga am espace place su bo boo bi dang koy caroler ne rek moom fi imam bi julli même ajuma sax mën na ko fa créer dama laaj. Mm-hmm. ajuma wala président mën na taxaw créer fa muy jullee jullee euh, waxtu yi waxtu normal yi. Mm-hmm. parce que ñun ba nekk palais salle de banque am na espace boo xam ne yaatu na. Mm-hmm. dafa benn genre euh, kii benn minbar rek minbar mooy espace ay tapis soo paree lebal tapis defule. ajuma moom ak njabootam ajuma. cabinet bi ajuma mu mu waa primature du ñëpp nag. moo wax ministre de l'intérieur. yooyu. kaay nañ jumaa ji ñu indi benn waa joo xam day bayaan xutba ci actualité actualité. Mm-hmm. président toog ñu xutba ajuma julli fa ajuma ba pare ñëpp tasaaru. Mm-hmm. fépp fu ñu julli farata rek aju mën na fi di juma mais bayaan moom kenn mënu fa jul juma. kon dama dégg waa ji koy conseil tudd Cheikh Omar Diagne la xawma mm-hmm. yooyu moom du xalaat. du xalaat en tant que expert. expert boo xam ne bii damaa nekk président waat man maa ko ñëw na ko. bu fi tabax jàkk mais dafa espace djulukay anka djulukay mais pas jàkk waaw ndax fi république la wa légui nak ëllëg kii neen kii ñëw nek chrétien noy def léegi ñu ne dañu du am na xam ne du xalaat daal malgré c'est bon baax na mais lu nekk fa kullu makanu maqaalu loolu daal lu ma koy xelal la bi ci des tamit na am conseil yoo xam bi attention nekk sëriñ daara neel benn ak état du benn de gis naa benn union boo xam ne bii ñu na ñoo ñoo jàppale daara yi ci ci Macky Sall ci ci asawala Jomaay contour mm-hmm. ma leen de xanaa tey ko man def bu tudd Jomaay jafe man mii maa man kenn ñemoo ko mais nag doon nañ xam nga xam lu tax ma ko parce que Macky dama ko xam am formation état am formation diplomatie xam ma ko jaar doo te doo ma violé mm-hmm. kon la mais a ati xaw si bariha l'homme qu'il faut à la place qu'il faut buñ ko ci ay la mais état état la mais man ko jël tas ministère en tant que conseiller mais quand ba éviter da nga éviter éviter de xam nga nek ak nit ci kaso mm. ak état du nga enam am nga formation état mais ak état du ben. mais nak yoon mais ñafa nek yag fa nak leen téere motax mu leen ay chef de cabinet ay directeur cabinet mu bàyyi fa da am na expérience kon nak nit ki daal boo jappalé jàppale mhm. da koy def is da nga koy orienté comme dit non c'est pas moy wax na dama fa bëgg bëgg nek dé dëgg nee naa man retraité naa mhm. mais xam-xam expérience yalla may nak dañ ko wéccok yow ci kaw soko bëggé d'accord su boba ñu xool